tey fu nekk ci Sénégal am na ku fa jóge ñëw wuyu suñu rencontre bi tey nag dafa nekk une rencontre tripartite Sénélec association de consommateurs mais également les membres du comité nationale de dialogue avec la clientèle donc dans toutes les régions du Sénégal ku nekk jóge na fa ñëw wuy si ñu ngi leen di remercier ci seen déplacement di leen massawu coono tamit di leen wax ne rek encore une fois rencontre yi xam ngeen ñu ngi koy def boobaak léegi avec le commité national de dialogue avec la clientèle bi mooy quatrième fois bi avec les associations de consommateurs mënatuñu compter sax ñaata yoon la ñu daje mais spécificité rencontre ren bi dafa fekk ne dañu boole dañu bëgg a dajale ñëpp ñi nga xam ne client bi moo leen tax a jóg boo nee Sénélec client bi moo ko tax a jóg boo nee association de consommateurs bi day défendre les intérêts du client mais boo nee comité national de dialogue avec la clientèle également ñoom it satisfaction de la clientèle moo leen tax a jóg kon ñetti organes yooyu yëpp leen boolee ah defe naa ne euh, waxtaan bi dina am solo trop waxtaan bi nag am dans un contexte particulier xam naa liñ naan tombé ma waral ay gaaf dinañ si dellusiwaat si kanam a kanam donc euh, nekk na dans un contexte boo xam ne tàngaay bi metti na nekk na dans un contexte boo xam ne ki di tàngaay bu metti di augmentation des consommations et ki di augmentation des consommations également wax yokkute factures yi te ki di euh, augmentation des factures di nga wax également euh, woyofal bi parce que woyofal bi ak facture yëpp en fait c'est la même chose d'autant plus que woyofal bi mooy suñu produit phare donc daal li ma buggoon a wax ci gàttal rek mooy jaajëfal leen rafetlu seen participation et je pense que ne suñu rencontre bi tey njariñ dina ci génn pour le bien des clients de Sénélec pour le bien des usagers du service de l'électricité merci beaucoup loolu la bëggoon wax rek en introduction. ngi leen gërëm di leen sant seen ginnaaw bi leen nuyoo ñu ngi leen di wan ni Sénélec si fukki at yi weesu def na ay jéego yu rëy a rëy. si ngir ngir ngir satisfaire clientèle bi suñ koy xayma courant bi ñuy togg 2012 nekkoon na si ñetti téeméer ñetti junni dem na si presque juróomi juróom-benn junni si 2022 maanaam li ñu amoon benn def nañ ko ñaar si si fukki at yooyu yëpp et pour ñu togg courant boobu yëpp dañu soxla woon ay centrales yu bees. xarale yu mën a togg courant bi donc 2012 ñi ngi amoon juróom-ñeenti centrale ñu def ay jéego ba 2022 ñu am ñaar fukk ak juróom-ñetti centrale moo ñu moo ñu dimbali ba en terme de euh, puissance installée ñu nekk ci presque 855 dem ba 1789 maanaam de su doon benn def nañ ko ñett ngir ñàkk euh, def euh, dugal euh, toolu kolu courant yi mooy solaire bi utiliser jant bi wala ngelaw li lekk def na si ay jéego yu rëy rëy parce que bu ko leen seetloo 2012 lépp pétrole la woon juróom-ñett pàcc rek la si defoon boo xam ni si si ndox mi la daan jógee si barrage OMVS mais diggante diir boobu si fukki at yi Senelec def na ay jéego ba dugal ay toolu courant dugal euh, ay euh, centrale yoo xam ni ngelaw li lañuy utilise ba soo jëlee park bi soo ko xaajee ñett benn pàcc bi yëpp ay courant yu jóge si jant bi la wala si ngelaw li lay nekk ak si ak si ndox mi rax si dool yi nag si période boobu yëpp tamit nit ñi li ñuy laaj si courant dafa bëri woon parce que soo leen seetloo 2012 euh, pointe bi maanaam li client bi di laaj guddi gi mu ngi woon presque si 466 mégawatts soo ko xaymaa léegi nii jamono ñuy toll daaw ñu ngi woon si 957 mégawatts et ren ji ñu ngi wax ay junni junni Senelec si côté boobu la nekk après ay Nigéria Ghana ak ay Côte d'Ivoire donc loolu day wane. soxla bu soxla clients yi soxla courant et Senelec teg métuwaayam yëpp pour satisfaire clientèle léegi soo seetloo yëpp li ñuy produire yëpp li ñu defar courant yëpp suñ ko jaayee ñu ngi woon si ñaari junni ak juróom-ñetti fukk gigawatt heure en 2012 toll si ñeent junni presque juróomi junni euh, gigawatt heure lañu lañu la ñuy jaay léegi bi nga ko jaayee nag suñ ko xaymaa ci xaalis mi ngi woon si ñaar deux cent quatre-vingt-deux milliards si daaw bi ñu tëjee suñu état financier ba certifié ko ñu ngi amoon huit cent quatre-vingt-six jaay si courant léegi pour xayma suñu xarañce dangay def seetlu nga xool li nga produire par rapport li nga jaay donc soo jëlee li nga jaay nga méngale ak li nga produire loolu mooy wan rendement bi sa efficacité donc bi nga ko xaymaa loolu suñu produire ñaar fukk ñoo ngi jaay juróom-ñetti fukk ak ñaar léegi li si des yëpp nag ay maanaam ay perte technique sa à lu que su jaaree ci réseau bi dafa am loo xam ni da koy perte ci transmission bi li ci li si des nag ay perte non technique la te Senelec mi ngi góor góorlu avec à travers ay contrôle yu ñuy def ci kër yeeg yooyu pour mën a capter loolu noonu di des ci production bi su ñu demee ba ci énergie non distribuée maanaam li ñu waroon togg te joxuñu ko te loo xam ne mi ngi euh, jóge ci ay travaux ay manœuvres wala ay coupures yoo xam ni du su suñu coobare ñu ngi woon ci 32 gigawatt heure 2012 après ñëw ba 17 donc wàññi ne ko genn wàll ci diggante bi. suñu gënee dem aussi clientèle bi su daan xaar paan doon na toog waxtu yu diir yu bëree bëri balaa agence Senelec ñëw di ko dépanner soo leen seetloo 2012 client bi daan na toog fukki waxtu balaa Senelec di ko ñëw euh, fajal ay ay euh, perte bu mu perte courant waaye soo leen seetloo jamono yi ñu nekk benn waxtu fukki minutes. suñu agent yi ñu ngi ci terrain bi def nañu mayage bu am solo ku nekk fekk nekk ci benn pàcc pour intervention bi gën a gaaw pour su panne amee rek ñu egsi sa kër daal di lay dépanner li li ñu tuddee ci tubaab coefficient disponibilité mooy maanaam nga am euh, euh, benn xala xarale boo xam ne euh, lépp waroon dox waaye ak visite yi ngay def ak entretien ak réparation yooyu yëpp noonu da xool yow sa xarale boobu ñaata moo si dox par exemple su doon 100 la ñu ni la 2012 mi ngi tolloon si 64 pour cent loolu moo doon dox si centrale yi suy demee ba 2022 ñu ngi si presque 77 pour cent loolooy dox ci xarale yi ñuy may ñu togg courant bi léegi ñu dem. si consommation spécifique ni ko tubaab di tudde loolu consommation spécifique moom mooy euh, euh, euh, combustible maanaam essence bi ngay utiliser pour defar benn kilowatt heure soo seetloo boobu noonu plus muy wàcc plus Senelec di wàññi ay coûts donc boo seetloo 2012 ñu ngi nekkoon ci 221 grammes wàcc ba 206 grammes. loolu mooy wane ni Senelec mi ngi góorgóorlu pour wane wàcce euh, coût courant yi ci jamono jooju yi noonu diggante 2012 ak léegi nag suñu clientèle bi dafa yokk yokk bu tar macha allah parce que mëtu woon benn million 2012 léegi ñu ngi toll ci ñaari million ak lu teg loolu yëpp nag mi ngi ginnaaw bi ñu ñëwee. si dëkku euh, taax yi dañoo songoon électrification rurale maanaam dëkk goxaat goxaat yi ba dëkk yi amul woon courant yëpp ñu dugal leen si courant yi donc ce qui fait que loolu moo joxe bon bu am solo si clientèlu lekk diggante boobu nag euh, en termes de qualité de service xawoon nañ si am ay jafe-jafe yu metti diggante bi soo tàmbalee si 2012 soo leen seetloo 2011 par exemple su doon at bi 365 jours la client bi doon na toog 39 jours yoo xam ne du am courant léegi suñ ko xaymaawee benn fan lay toog amul courant donc loolu mooy wane ni Senelec def na ay ay ay ay ay jéego yu mat ngir loo wàcce loolu yëpp nag ndax client bi bañ a sentir nekk ci confort am Senelec nag. li ëpp genn wàllam si ay euh, dépense am si si si si essence ak combustible la jëm donc suñ ko xaymaawee dafa am koo xam ne structure boo xam ne moom mooy tëral prix wu combustible bi Senelec bi utilisé mooy comité national des hydrocarbures donc suñu seetloo si jamono ji bu mu courant bi bi essence chère trop trop 2012 soo leen seetloo mi ngi woon si 540 000 diesel dem ba 720 000 si daaw. Euh, fuel bi euh, waa centrale Senelec di utiliser mi woon si trois cent soixante mille dem ba si presque quatre cent quatre mille ak trois cent quatre-vingt-huit mille mooy ni jamono jooju yëpp fluctuation yokkute essence bi dafa sonal Senelec si jamono jooju yëpp nag moo tax loolu noonu nga koy sentir si facture client yi suñu demee si euh, jamono jooju aussi Senelec dafa bëggoon bu mu paree defi technique bi maanaam tous lépp luy xarale teg nañ ko góorgóorlu nañ ci ba pare danañ bëgg xool suñuy na li ñuy liggéeyee na lañ ko mën a ñoŋale bi ñu ko defee nag dañoo jël cabinet yu mag yoo xam ni ñoo lay jox diplôme boo xam dañ lay wan ni yow vraiment toppatoo nga say client donc 2017 la ñu defoon euh, exercice boobu yàlla def nañ seen la génn si benn certification te depuis loolu nag am na lu ñu tuddee dispatch national kooku mooy séddale courant bi si Sénégal boobu tamit certifié nañ ko si même jamono ji Senelec dafa soxla xaalis bu bëri pour financer ay investissement am si fil yi si centrale yi si matériel yi si courant si oto yeeg yooyu yëpp noonu donc ñu seetlu ni dëkk yu bëri dañuy soxla xaalis mais li ñu nekk lebale dafa cher comme yàlla def na ni biir Afrique si sunu côté bii nii am na benn commission benn marché boo xam ni dafay agréé ay euh, agence notation agence notation mooy seet yow lan nga jar lu nekk sa structure bi yëpp pour wan ko ñu bëgg a investir si sa société wala sa dëkk bi ñu ko defee nag Senelec jël kii boobu noonu agence boobu noonu mu saytul ko de 2012 à 2017 lan na mën a lebale ak ban confiance la mën a jox ñu bëgg a dugal xaalis Senelec léegi bi ñu ko defee Senelec génn ci note bu mag a mag boo xam ne garantie yi ñu doon laaj pour ñu leb xaalis dañ koy wàññi nga par exemple suñu doon suñu doon euh, lebalee huit pour cent dinañ wàcc ba quatre pour cent trois pour cent nga xam ne risque de marché bi loolu dañ koy teggi ci financement Senelec yi loolu mooy lu am solo ci Senelec euh, boobu tamit. ñu seetlu Senelec day intervenir si ngeen fi woyofal social gis ngeen fi ni ñuy dimbalee euh, néew di doole yi léegi ñu ne nag nañ ko gën a ñoŋal créer fondation loolu nag président de la république 2021 jox ñu décret boo xam ne daf ñuy créer suñu fondation ki ko jiite mooy Abdou Aziz mii toog e day yëngu si tout lépp si ndox euh, santé euh, agriculture accès à l'eau ak éducation njàngum xale yi pour mën a leen jàppale. léegi yëg ngeen lu ni depuis quelques années Senelec dañ ko war a xaaj ay pàcc léegi bu xaaj ay pàcc commission de régulation du secteur de l'énergie nga xam ne mooy saytu suñuy li ñuy dépense yëpp ci at bi dafa sant ay cabinet mu xooloon ñu ba xam ñun suñu comptabilité ni ñuy pàccee yooyu yëpp noonu est-ce que pare nañu pour dem ci loolu léegi bi nga xaymawee cabinet yi ni ah euh, commission de régulation Senelec de ni ñu koy defee baax na donc ce qui fait que ñoom ñu jox ñu certificat que ni loolu baax na léegi nañ ko gën a euh, en attendant effectivité wu ni ñuy tase Senelec bi noonu ñun suñu côté pare nañ daal pour loolu mën a ñëw ak jàmm ak salaam. boo leen aussi jamono jooju gouvernement Sénégal waxtaan nag ak ay euh, gouvernement américain ba dugal xaalis bu takku ci secteur énergie loo xam ne dañu ko may don la. donc soo koy xayma mooy euh, ñetti téeméeri milliards la gouvernement américain jox may Sénégal pour ñu def ko ci secteur énergie bi te loolu yëpp programme boo xam ne am na ñaari at mi ngi continuer di wéy et gis nañ ci la gis na ci boppam ak aussi bien commission régulation ak décret yi génn yëpp ci code de l'électricité code gaz yeeg pour xaar gaz bi nan lañ koy gérer yooyu yëpp yooyu yëpp gouvernement américain moo ko financé dimbali ñu. ba Senelec lu mu waroon def yëpp def na ko incha allah waaw ginnaaw loolu nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wan ni Senelec Senelec seen Senelec la et effort yi ñu def yëpp nag da ci am euh, pàcc bu mu am solo boo xam ne gouvernement bi moo ñu koy jàppale mais également euh, vision suñu directeur général ba permettre ñu lii nag am na lu des lu bëri nag waaye ñu ngi si yoon bi di gën a góorgóorlu foofu nag lay pare di leen jël gërëm di leen sant seen déglu. merci. dañu jël benn fan boo xam ne mooy le 19 octobre ñu tracé consommation bi te profil boobu moom mooy évolution bi boo ko jëlee si lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est la même chose du changer donc dañuy dañuy dañuy gis ni de une heure à huit heures du matin foofu la ñu amee le creux charge mooy fi nga xam ne du ñu dara foofu dañuy dawal machines yi nga xam ne ñoo gën a yooyu ñi nga xam ne ñoo gën a optimal parce que suñu politique aussi euh, daf si bokk ce qu'on appelle un dispatching optimal mënuy jël ay machines yaa nga xam ne ñoo gën a cher di ko dawal pour satisfaire une demande boo xam ne jarul donc dafa dañu am une politique d'optimisation des coûts de de production donc après mu am beneen cycle cycle boobu mooy entre huit heures et quinze heures quinze heures seize boobu service yi démarré nañ nit ñi nit ñi jug nañ activités yi commencé nañ donc charge bi jugaat c'est le c'est le prochain c'est le c'est le bi jugaat donc bu jugee ba 15 heures 16 heures après mu am une légère baisse c'est normal aussi les gens service yi dañuy arrêté activités yi wàññeeku à partir de 18 heures puisqu'on a 70 pour cent de notre charge qui est domestique mooy kër yi donc bu ñu ñëwee ba ci kër yi dañu gis ni nag charge bi day yéegaat parce que 18 nag voilà bu ñu ñëwee si kër yi charge charge charge bi yéegaat donc ba minuit donc point parfois minuit parfois pointe bi ñu ngi koy am 23 heures parfois 22 heures parfois minuit donc loolu mooy courbe de consommation journalière après mu am benn courbe boo xam ne dañu dañu jël sur deux périodes 2022 ak 2023 pour wane ni également sur l'année dafa am trois cycles selon la saisonnalité donc voilà. voilà li donc janvier ba janvier ba mars décembre ba mars dañu gis ni consommation bi dafay néew néew néew néew néew néew ren comme li DG bi wax si médias yi li ñu gën li ñu gën a enregistré si demande pendant cette période la mooy 700 mégawatts après mu am beneen période boo xam ni. entre avril ak juin la température bi commencé na yéeg tuuti donc boobu ñu ngay wax ni période boobu c' est période de euh, consommation moyenne moo am nag foo xam ni demande bi day yokk entre juillet boobu lay gën a tàng si diggante bi am na mois de septembre chaque année dañuy gis ni septembre day xaw am benn kër consommation bi day wàññi tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti rek parce que dafay taw heure boobu donc période boobu noonu moom mooy la période de pointe mooy entre juillet fin juin ba octobre période boobu noonu lañ nekk période boobu noonu ren comme li sama collègue bi wax li ñu enregistré ci demande en un instant mille soixante quinze mégawatts la par rapport ak li ñu li ñu enregistré année bii en janvier muy sept cent mégawatts dafa yokk ñaari yoon presque mais mais li gën a li gën a reflété consommation bi du sax pointe bi. mais c'est l'énergie mooy li nit ñi di dawal seen li nit ñi di consommer par heure par deux heures par vingt quatre heures énergie bi ñu gis ni entre janvier ak avril dañu consommer mille huit cent soixante trois gigawatt heure bon boobu damay bàyyi cantum peut-être mu mu xam waxal ma ko ko quoi <laughs> maintenant entre juillet ak octobre ñu gis ni dawal na euh, ñun en tout cas produire nañ trois mille quatre vingt seize gigawatt heure donc loolu bu ñu ko xaymaa day nekk 66 pour cent d' augmentation donc comme li ma ko waxee ci français ñun suñu liggéey mooy heure bu nekk li Sénégalais yi soxla ñu mën leen satisfaire donc li sénégal yi soxla mënuñ ko stocké mënuñ ko stocké donc chaque instant dañuy équilibré li ñuy produire ak li Sénégalais yi di consomé donc suñu wax suñu joxee chiffres yi day wane ni aussi li ñu produire c' est ce que les clients ont consommé. voilà donc foofu laa bëggoon yem pour bañ a guddal donc di leen jaajëfal di leen di leen encore remercier quoi pour votre présence merci beaucoup. may woo ci nga xamante ne mooy Ndeye Aminata Sarr mu ñëw wax si woyafal bi ah moom moom bëri ay client lool. di tàmbalee nuyoo bi ci monsieur le secrétaire général mi fi teewal DG di ci teg madame Tabara Ba suñu kilifa. mi waral mi initier jotaay bi euh, di ci teg tous les membres comme COMDIR élargie yéen sunu invité yi maa ngi leen di beral nuyoo spécial waa association consommateurs yi ak waa membre du comité de dialogue national des clients tey nag tey nag sama présentation va porter sur le woyofal particulièrement sur euh, la facturation di woyofal ndax euh, fan yi ñu génn yëpp coow li bari na interrogation yi bari na ma am njott ne peut-être à l'issue de la présentation di ngeen comprendre nan la Woyofal di demee lan mooy Woyofal déjà nan la Woyofal tëddee nan lañ koy facturer hmm, déjà pour commencer lan mooy Woyofal Woyofal euh, par rapport ak facturation bi ñu miinoon Woyofal mooy li leen di proposer mooy jënd un volume un certain volume d'énergie ngeen baal ma nag présentation bi ma woyof la mais dinaa wax lu ci bëri ci français pour mu gën a leer si man donc euh, usager bi day jënd un volume d'énergie donné stocké ko ci compteur am di consommer au fur et à mesure muy consommer ñuy décrémenter volume boobu ba keroog muy jeex donc euh, le conteur wala woyofal compteur bu spécifique la en général conteur la mooy élément bi mesurer énergie bi bu ànd ak beneen équipement bu ñuy woowee clavier moom ngeen gis ne ci présentation bi euh, woyofal aussi comme que da ngay consommer muy dem bu jeexee day couper day ànd ak ay dispositif yu lay yëgal ne courant bi mi ngi wàññeeku ndax nga mën ko xam mën a fagaru balaa moo jeex toujours pour faciliter compréhension facturation bi ma ñëw ci euh, nu ñu organiser clients yi ci woyofal sur si BT bi en général mais comme tey kàddu gi ci woyofal la concerné il faut nga xam ne client bi bu ñëwee di demander courant ñun dañuy xool nan lay jëfandikoo courant bi ndax lu muy utiliser këram la walla ndax lu muy utiliser pour liggéey bu dee lu muy utiliser këram la ñu ngi koy tuddee un client domestique bu dee lu muy utiliser pour liggéey ñu ngi koy tuddee un client euh, professionnel distinguo boobu dafa am solo ndax derrière day joué ji niñ koy facturer beneen distinguo bi tamit mooy ban puissance la soxla bu dee puissance bu ndaw la soxla ñu ngi koy woowee un client petite puissance gis nga ko pour illustrer client petite puissance mën na am ba 10 ci këram benn frigo benn congélateur ñaari télé micro tondu ba ñaari climatiseur loolu yëpp petite puissance àttan na ko waaye boo commencé dépassé lii rek ni ko sama collègue bi romb léegi waxee ñetti climatiseur ay machine à laver et cetera dootoo nekkati client petite puissance da ngay nekk client euh, euh, moyenne puissance. donc bu ko defee ñu am ñeenti façon client domestique petite puissance professionnel petite puissance euh, domestique moyenne puissance ak professionnel moyenne puissance. ñeenti yooyu ngeen di gis benn bu nekk ak niñ lay facturer bokkul dinañ ko gis bu ci kaname léegi nan la ñuy jëndee <clears throat> fan la ñuy jëndee crédit woyofal mën nga ñëw ci agence Sénélec bu la gën a jege présente sa numéro de compteur ñu jaay la comme mën nga dem ci suñu partenaires yi ngeen gis nii à l'écran ñoom euh, woyof boutique woyofal yi partenaire à l'encaissement yëpp Wave Orange Money e-money et cetera fii nag li ñu war a préciser mooy système de vente bi Senelec ko moom te mu ngi Senelec nekkul dafa am système de vente chez nos ak système de vente bu nekk chez euh, Senelec benn système de vente la bu nekk ci Senelec système bi foofu la nekk serveur yi foofu la nekk léeg nga dégg client yi ne jëndee Senelec moo gën a sakkan loolu amu ci yëpp benn la benn algorithme bi mooy jaay courant mi ngi Senelec mi ngi ci serveur Senelec yi partenaires yi yëpp dañuy ñëw foofu rek jël jottali leen noonu la demee. voilà pour jënd toujours il faut nga yóbbaale sa numéro de compteur numéro la à onze chiffres euh, ni ma ko waxee ci njël benn woyofal day am benn clavier bu lay jox mi ngi sa biir kër ñu ngi koy woowee clavier wala interface utilisateur client. Euh, moom nga yor moom la client yi di wooyee sa léeg-léeg waaye du compteur moom ngeen di moom ngeen di branché di saisir ay di saisir crédit bi ngeen jënd. day ànd ak aussi le compteur compteur bi généralement ñu ngi ko teg en limite de propriété ci coffret compteur boobu numéro m un chiffre lay am donc pour jënd da ngay yóbbu sa numéro de compteur ñu jaay la bu ñu la jaayee ñu euh, crédit bi ñu la jaayee ñu ngi ko def ci benn code vingt chiffres ci lañ encodé boo ko saisiré ci sa compteur da ngay valider li nga jënd dem ci sa compteur ñuy illustrer ak ay reçu de paiement benn bi boo jëndee Senelec reçu bi nii lay nii lay bindoo beneen bi boo jaaree ci suñu partenaires yi reçu bi noonu lay mel voilà toujours ak clavier bi ñu leen jox bi nekk seen biir kër non non fii niveau de alarme de niveau de crédit yi lañ leen di lañ leen di wan am na quatre alarmes en général su fekkee sa crédit doy na compteur bi day am led bu verte buy booy gis moo lay won ne yow am nga plus de 30 kilowattheures si sa compteur euh, tu ko utiliser confortablement amul problème euh, bu crédit bi wàññeekoo euh, ba néew ba toll ci diggante 30 ak 15 kilowattheures da ngay gis mu am benn led bu rouge buy aligné wu lampe bu rouge buy aligné wu bu gënee wàcc nga gis làmp bi commencé di clignoter mu gënaat wàcc mu daal di def signal sonor pour wan la ne jot na nga jënd sa courant balaa muy coupé voilà alarme yi ñu def nag ci compteur bi du fonctionner de 8 heures du matin euh, euh, fonctionner day fonctionner de 8 heures du matin à 20 pour bañ a déranger guddi bi alarme sonore bi donc merci voilà donc euh, li ma fi jot a wax yëpp c'était pour euh, poser le le décor ñu daal di jublu maintenant <laughs> ci facturation woyofal bi voilà facturation woyofal il faut que ñu comprendre ne que cycle de facturation bi semence mensuel nga bu njëkk bi ngeen daan di jot seen facture facture yi chaque deux mois lay ñëw chaque bimestre dans le woyofal. Euh, cycle de facturation bi chaque chaque weer la donc li ngay jënd du premier au au bu dee weer bu dee trente la loolu lañ loolu la système bi di considérer pour déterminer ci ban tranche nga toll d'accord euh, non non euh, dellu si j'ai fini voilà merci euh, pour euh, facturer en woyofal boo ñëwee ne da ngay jënd un certain montant dañuy déterminer le nombre de kilowattheure bi nga bi nga bi nga bi ngay jënd euh, dañuy déterminer aussi le montant de la redevance redevance bi mi ngi dépendre ci ban type de compteur nga yor monophasé bu dee petite puissance la yéen ngi fàttali ko type de compte type de client yi ñu waxoon triphasé euh, bu dee euh, moyenne puissance nga ñuy déterminer aussi TVA bi en fonction des usages ñu fàttali ne ñi nekk en usage professionnel dañuy fay TVA tout le temps alors que ñi nekk en usage domestique ñi ngi fay TVA uniquement ci troisième tranche dañ leen ko exonérel première tranche ak deuxième tranche muy lu am solo lu jar euh, euh, a noté TVA TCO aussi mooy taxe communale bi dañ koy fay à chaque achat ma fàttali ne redevance bi benn yoon par mois lañ koy fay préciser wu ko am na aussi timbre bu ñuy jël mais loolu mi ngi. dépendre si montant bi ngay jënd soo jëndee lu ëpp cent mille francs si ngay fay timbre jëndee lu mat cent mille francs doo fay timbre dañuy aussi déterminer tranche yi comme ni ma ko waxee sànq euh, en fonction de li nga jënd ci weer bi nañ ci ñëw gën a ñëwaat ak kii bi on va donc bi day gën a détaillé li ma wax léegi mu ngi nii le montant euh, timbre bi représente pour cent du montant au timbre si l'achat est supérieur à 100 000 francs. Euh, voilà s'il y a une dette dañuy jël dette bi dette bi mooy lan mooy bor bor la mun na nekk c'est ça peut arriver bu dee client bi dafa jóge ci système classique di ñëw woyofal dernière facture ba mu amee woon mun nañ ko ko positionnel dette mu koy fay chaque achat wala su fekkee yaa a des rappels de consommation yooyu itam mën nañ ko positionner comme dette bu boobaa système bi booy jënd bor bi lay njëkk a jël doog la jaay ci li des après on la TVA on a la TVA qui concerne achat troisième tranche pour les clients domestiques ni ma ko waxee léegi ak tous les achats pour les clients professionnels redevance ñu ngi koy fay benn yoon par weer hmm? n'est-ce pas waaw après ñu am TCO TCO bi mi ngi toll ci 2,5 pour cent du coût de l'énergie sur tous les achats ah et après ñu doog la jaay euh, l'énergie uh-huh. leer na ah <laughs> son papa bi d'accord de <laughs> ok on y hmm? on y on y voilà léegi ñu ñëw sur les tarifs en vigueur waa ñu def taxaw seetlu ci euh, tarif yi ñuy appliqué comme ni ma leen ko waxee sànq euh, domestique petite puissance première tranche am ci woyofal 91 virgule 17 la deuxième tranche am 136 virgule 49 troisième tranche am 149 virgule 06 Euh, pardon euh, non ma woyofal bi bàyyi leen xel li ñu encadré en vert mooy woyofal li ñu encadré en rouge mooy classique d'accord donc maa ngi ci woyofal bi euh, première tranche bi pour damay jël juste exemple domestique petite puissance du ma def yëpp pour bañ a guddal première tranche bi c'est 91 virgule 17 deuxième tranche 136 virgule 49 troisième tranche 149 virgule 06 francs CFA merci Euh, lii ay français mooy prix bi mooy njëggi li kilo kilowattheure bi di jaax euh, su ngeen seetloo bu baax fii di ngeen gis ne prix wu troisième tranche bu woyofal moo gën a néew prix wu troisième tranche bu classique bu woyofal bi la ñu encadré en vert encore une fois bu classique bi lañu ñu encadré en rouge loolu di avantage bu woyofal ci kaw classique lu am solo la ñu ñu àggali uh-huh. voilà léegi tranche yi fii di ngeen gis ne encore une fois damay jël rek exemple usage domestique euh, usage euh, domestique euh, petite puissance pour mu gaaw tranche bi c'est de 0 à cent cinquante kWh première tranche soo rombee cinquante kWh yi rek dugg nga deuxième tranche mi ngi tàmbalee 151 dem 250 boo rombee 250 nag. yaa ngi dugg troisième tranche donc tranche boo tollu rek prix yi ma leen wax sànq moom lañ lay appliqué euh, ci ci ci franc CFA boo nekkee domestique petite puissance boo jëndee 14 441 ba 14 446 yaa ngi yem ci première tranche boo jëndee lu ëpp loolu rek dugg nga deuxième tranche boo jëndee ba 28 436 francs CFA yaa ngi ci deuxième dugg nga deuxième tranche bi boo ko rombee rek. lépp loo jëndaat ci troisième tranche bi nga koy lañ la koy jaay lii similation la bu leen di wan souvent aussi euh, clients yi dañuy am interrogation bi lu tax bi ma jëndee 5000 ma amoon un certain nombre de kilowattheures ma jëndaat 5000 amaatuma ko ma jëndaat 5000 donc simulation bi pour wan leen sur 8 achats de 5000 francs ci benn mois variation kilowattheure yi ñuy am premier achat bi mi ngi nii 5000 francs client bi domestique petite puissance la day am 48 virgule 9 kilowattheure parce que li mu jënd yëpp ci première tranche la yam mu jëndaat 5000 francs mu amaat mu am 53 euh, virgule 5 ngeen gis ne li mu am ci deuxième achat bi moo ëpp li mu am ci premier achat bi lu tax parce que ci premier achat bi dañ ci tekk redevance bi te ci deuxième achat bi duñ ko jël ndax redevance benn yoon la ci weer bi loolu moo koy justifier mu jëndaat une troisième fois mille francs mu wàññeeku effectivement lu tax mu wàññeeku parce que une partie de li mu jënd première tranche la ko jënde mais une autre partie deuxième tranche la ko jënde moo tax mu am 51 virgule 57 donc 47 virgule 59 en première tranche et 3 virgule 95 en deuxième tranche bu jëndaatee 5000 li muy jënd yëpp deuxième tranche la moo tax mu am au niveau quatrième achat bi 35 virgule 7 naka noonu euh, cinquième achat bi mu ñëwee sixième achat bi léegi dugg na troisième tranche une partie deuxième tranche une partie troisième tranche à partir de septième achat bi ba weer bi dee lu mu jënd rek ci troisième tranche. ci weer bi benn la benn la parce que. Hmm? su su su jëndee ma xool euh, huit huit cinq mille francs yi huit fois la cinq fois huit ñaata la bu jëndoon quarante mille cumulu lii lay am mais comme da ko pàcc pàccal day gis euh, mais su fekkee ne moom consomation wam euh, consommation wom par exemple cent cinquante kilowatt heure la par mois soxlawul muy jënd lu quarante mille parce que dina am lu mu jënd ci troisième tranche bi te du ko consommer donc loolu la xam li nga soxla ci weer bi nga jënd ko mooy meilleure façon de de d'acheter benn yoon wu ñaari yoon mais xam li nga soxla nga yem ci ndax loo romb ci weer bi ah, et tu as plus de chance dugg ci deuxième voire troisième tranche voilà. dañuy wala clavier est-ce du différence de clavier du ci dara du ci dara conteur bi mooy natt te ay kilowattheure lay natt donc euh, loolu du ci dara clavier yi c'est juste pour communiquer avec ton compteur waaw ay évolution la rek à chaque fois dañuy gën a gën a yeesal gën a noonu la rek hmm, merci voilà fii ñu ñëw sur les chiffres de la clientèle woyofal euh, clientèle woyofal bi mi ngi toll ci 1 million 528 mille 602 clients foofu lañ toll ci ay clients woyofal si 1 million 528 mille 602 yi 983 mille 660 duñu génn première tranche si 1 million 526 mille 602 yi je répète. cent mille 983 961 du ñu génn première tranche seen consommation du génn maanaam du ñu consommer plus de 150 kilowattheures par mois waa ñooñu la ñuy woowee catégorie sociale non non reviens j'ai pas fini merci ñooñu ils représentent 64 pour cent de la clientèle Woyofa si si euh, on a aussi 394 961 clients yoo xamante ne du ñu romb deuxième tranche si deuxième tranche bi la ñu yor soo xoolee première client nombre de clients première tranche ak nombre de clients deuxième tranche ils représentent plus de pour cent de la clientèle ñooñu du ñu fay TVA d'accord 10 pour cent yi des ñooy ñi jàll troisième tranche ñooñu nekkatuñu mënatuñ leen considérer comme des clients sociaux ay nanti lañ macha allah waaw macha allah waaw ñoom la ñoom la waaw mooy ñuy dugg troisième tranche effectivement mooy ñuy ñu ñu am matériel yu bëri yi donc il consomme plus de 250 kilowattheures par mois l'aide bi mooy moins conseil mooy moins consommé <laughs> oui à fin septembre voilà madame Ndoye di préciser ne chiffre yi c'est à fin septembre 2023 voilà donc euh, avantage yu woyofal yi par rapport ak classique bi cycle de facturation bi c'est comme ni ñu ko waxee sànq troisième tranche woyofal moo gën a yomb troisième tranche euh, euh, classique Régis léegi ñu juste comparer euh, benn client DPP buy consommer cent cinquante kilowattheures par mois en classique ak en woyofal booy consommer exactement 150 kWh par mois soo nekkee woyofal yaa ngi fay chaque mois yaa ngi jënd chaque mois 14 446 sooy consommer 150 kWh nekk euh, client buy jot facture chaque mois mu ngi lay dikkee 19 327 lu ko waral parce que ci deux mois yi euh, client classique bi consommé na deux fois 150 dugg na troisième tranche bu yàgg. alors que kii chaque mois du du romb deuxième tranche mu leen di firndeel ne woyofal moo ëpp avantage fuuf classique waaw parce que différence bi bu ngeen ko xoolee soriwul junni franc CFA woyofal mu lay permettre nga jënd li nga li nga soxla li li nga yor sur le moment à partir de mille francs Euh, mën nga xool li la dese ci ci crédit bi mën nga xool sa consommation journalière mën nga xool sa consommation mensuelle mun nga xool say dix derniers mois de consommation mun nga xool tamit puissance euh, instantanée bu chaque appareil donc vraiment ku bëgg suivre sa consommation woyofal moo gën a indiqué am na aussi possibilité activer le crédit d'urgence maanaam leb bor 5 kWh pour euh, les clients en monophasé et 10 kWh pour les clients en triphasé. Uh-huh. waaw lépp la boo jëndaatee da koy da koy jëlaat noonu la dem hmm? le coût de 5 kWh c'est ça dépend bu dee tarif yi ñu wane sànq umbalaan leb la boo jëndaatee ba dugal ko da koy jël <laughs> waaw compteur bi dafa ànd ak système de protection muy protéger seen équipement yi di protéger aussi par rapport ak yenn défo yu mën a survenir ci réseau bi comme baisse de tension surtension waaw ñu leen di euh, jox ay tegtal fii s'assurer que vos installations sont aux normes am na solo ne pas laisser allumer les lumières inutilement éteindre les appareils inutilisés privilégier équipement yu neuf yi ndax ñoo gën a performant faire 820 à 826 pour connaître sa consommation moyenne mensuelle du mois et acheter que ce que ce dont vous avez besoin euh, de son besoin éviter d'acheter de forte sommes vers la fin du mois effectivement crédit bi su jeexee vers le vingt et quelque nga xam ne weer bi lee mu de jëndal li nga soxla rek pour weer bi dee nga duggaat ci cycle de facturation bu bees nga mën a jëndaat euh, sa consommation mensuelle voilà voilà donc di leen fàttali bu ngeen soxlaa taxaw wala ndimbal mun ngeen jot Senelec ci numéro yi ñu affiché fii on est également présent sur les réseaux sociaux ak suñu équipe euh, social média suivant voilà di leen gërëm ci teewlu bi di leen ñaanal kenn dal ak jàmm merci beaucoup Moussa Dieye moom moo doon ancien secrétaire général bu Sénélec ñuy nuyu nag euh, Toby Gueye di secrétaire général bi fi nekk di nuyu Bassirou la directeur qualité également ak sécurité kon euh, ancien SG ah. nga ñëw wax tuuti yow conseil spécial en accompagnement des managers salaamaaleykum wa rahmatullah euh, dëkk bi li gën a euh, réer en tout jaxasoo bi gën a am mooy ni nit ñi comprendre lan mooy tarif ak courant bi nan lañ koy jaayee man nag yàgg naa Sénégal def naa ko 35 tarif yi ñuy wax ni man koy natt di ko bind boobu maa nga fa xale laa woon sax parce que da ngeen xam ne tarif yi Sénégal état bi euh, tarif bi si ñaari yëpp la wékku gouvernement bi dafa gis société bi mu ni waa Sénégal dama leen di xaj dama leen di séddale ay pàcc ñi nga xam ne amuñu dara ndax amuñu dara mais am nañu mais amuñu lu ñu am doyul ñoo xam ne vraiment ay néew doole yoo xam ni vraiment ay néew doole yu. ñu gën a suufee ci néew doole ma teg si ñi nga xam ni euh, néew nañu doole mais ñoo tane ñu jëkk ñi d'accord ma teg si ñi nga xam ni euh, am nu tuuti doole mais boo koy comparer ak peut-être ñeneen ñoom it ñoo gën a néew doole ñoom loolu mooy tranche boo gisee tranche yi ñuy wax ni du tranche mooy ni gouvernement bi wax ba ñuy def tarif bi en 94 nan la nan la tase dëkk bi daf na nu képp koo xam ne li muy lakk par weer ci tarif bi nga xam ne boo ko xoolee tey tarif bi loolu mooy 15000 man gouvernement bi kooku jaay ko courant bi li gën a yomb bu ko lakkee ba pare du fay TVA man du ma jël TVA ci moom parce que kooku pour man moo bi nga xam ni moo gën a suuf mu ni ki si tamit mooy ki nga xam ni courant bi muy lakk ak matériel yi mu am paasewul vingt huit mille kooku mooy fay lu gën a cher ku njëkk ki waaye man gouvernement bi duma jël tax ci moom parce que ñoo ñaar mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a néew doole si dëkk ku jëkk ki mooy moom la ñuy wax première tranche ci tubaab ku si topp moom la ñuy wax deuxième tranche ñu ne képp koo xam ne li ngay lakk passé nag li deuxième tranche bi ki nga xam ni moo si tegu passé na loolu yow yaa ngi troisième tranche kooku nag bu ñëwee daf may fay man sama TVA man gouvernement parce que mayu ma ko sama TVA te TVA bi 18 pour cent la c'est-à-dire boo doon fay cent francs dañ ci yokk 18 francs doo xam loolu yemul bu fekkoon yow da nga waroon fay 100 francs fii fële 118 ngay fay loolu moo indi d'abord li ñuy wax structure du tarif waxaguma prix bi de dèjà ni ñu sëddalee nit ñi si ay xaaj ñetti xaaj ki néew doole ki si tegu ak ki si tegu euh, léegi nag même ñooñu sax am na ñu leen ëpp doole moo tax tarif bi yemul fii boo gisee tarif bi dañuy wax moyenne puissance kii petite puissance mooy li ma wax nii mais am na koo xam ni doole ëpp na loolu képp koo xam ni sa doole bu ñu ko xoolee booy consommer. par ñaari weer ëpp na cent mille wala cent vingt cinq mille normalement waratoo nekk foofu parce que gouvernement bi génn na beneen tarif boo xam ni boo ko demee non seulement yow daa mën a lakk mais li ngay gën a lakk du cher noonu par rapport ak koo xam ni day jaay courant loolu mooy moyenne puissance boo xoolee moyenne puissance mooy ki nga xam ni boo xoolee facture ñaari weer passé wul deux cent cinquante parce que bu ko xasee passé bu demee fii aussi li muy fay am na beneen tarif boo xam ne bu fa demoon ci lay gën a yomb maa ngi si dellu si léegi am na keneen beneen tarif boo xam ne aussi boo paasee kooku ñuy wax ni sa deux cent vingt sin mille supposons nga am yow nga ni am naa doole mais sama facture dem na ba un million boo demee ba un million grande puissance nga war a def boo fa demee si lay gën a yomb bu fekkee ni yow da nga bugg nax Senelec ñu man kat euh, sama kër euh, euh, ku néew doole la mais compteur ba nga fa def ak moom moom mënoo ko nax parce que loolu làkk mu bind ko compteur bu bu bindee ni yow li nga enregistré par weer euh, cent vingt cinq mille mais dafay wax cent vingt cinq mille mais daw di yow da nga ni néew doole nga mais bu boobaa sa lépp yaa ngi kay fay troisième tranche parce que compteur bi dafay pénaliser parce que da ngay wax cent cent néew doole nga mais doo néew doole donc yaa ngay fay cent cinquante neuf francs plus TVA muy cent quatre vingt alors que boo bàyyoon foofu nga ni man kat du ma néew doole mais kër laa yore nga ñëw fii Sénégal nga ne ko man petite puissance ngay def moyenne puissance ngay fay mooy bu bu si topp gouvernement dafa leen bu fekkee loolu la yow 158 ngay fay c'est-à-dire li ngay fay fii mooy gën a tuuti que bu fekkoon danga nga bëgg nax Sénélec ni leen man dama new doole te compteur bi war na da nga néew yooyu mooy erreur yi nga xam ni day bare. ci facture yi parce que simplement nit ñi li ñuy lakk ak li am yemul nit ki bu amee bu ñëwee Senelec dafa war a wax exactement yan appareil la am appareil bu demee ba changé nga xam ni moom dem na am na lu mu am ba nga xam ne appareil yegg na fu mu yegg dafa war a dellu si Senelec ni man kat jënd naa léegi climatiseur élément chauffe-eau élément bu boobaa Senelec xoolal que si tarif yi am juróomi tarif yi am fii juróom benn yi benn ñaar ñett tous ces tarifs Senelec si boppam moo war a xool yow li nga ko wax nii ban tarif moo lay jox courant boo xam ne moo gën a yomb bu facture yi mais boo nee patt toog sa kër changé euh, yaa kii nga détruire sa kër changé compteur bi wut triphasé wut ko la neex koo mu ñëw changé la yëpp nga ni patt mais compteur ba nga fa moom bis bu waxee ñaata nga la bu ñu ko dugalee si système bi foo waroon fay ñaatu fan la ngay fay parce que waxoo yow li nga nekke bokku la li nga xam ne yow modifié nga ko fi toll nii am na ñu bari ñu ñuy gis ñoo xam dañuy wax mais bu ma xoolee bu ñu xoolee seen facture dañuy xam ni ñoom la ñu waxoon Senelec bi ñuy laaj courant bokkul li ñuy dund léegi parce que yow bu fekkee ni yaa ngi lakk 4000 kilowatts par ñaari weer alors que bu fekkoon ni yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi euh, petite puissance petite puissance mënul lakk 2000 kilowatts ci yoon parce que bu jëloon compteur bi yépp bu su bu ne muy tourner dou heures. bu su bu dee douze heures taxawul nelawul deful dara bu bu weer bi deewee du passé deux mille kilowattheures bon bu ko passé saaba diir kër la muy lakk ak compteur ba fa nekk bokkul ak disjoncteur ba changé na ko ba man lakkul ko loolu muy erreur boo xam ne day yokk facture yi te du Senelec mooy responsable ñi modifié seen instation te ñoo wuñu wax ko ñoom ñoo ko indi donc yéen ñi nga xam ne da ngeen di yore suñu affaire da ngeen di jottali Senelec il faut ngeen wax client yi jarul ñuy ragal boo amee appareil nga ñëw si Senelec nga wax ak moom ñoom dafa ñu lu dul wan la si tarif yi nekk fii ban moo gën a méngoo ak say appareil. waaw mais de ñoo ngi fi ñun demuñu ah bu doon gis nga. ah non non ça c'est le bii mooy ce qu'on appelle grille tarifaire grille moo moo jiitu tarif bii mooy nan la gouvernement bi seen séddale société bi si ay classes cest dire ñu néew doole ñu am ñu ñi si topp ak ñeneen ñi si topp ak ñi si topp ak ñi si topp boo xoolee bi si kaw. premier tranche bi mooy ji gouvernement bi ni ñoom bu fekkee ni ba ma leen di xool li ñu soxla si courant même bu ma leen ko jaayee li ma koy jaayee du passé quinze mille mooy quatorze mille quatre cent quarante six kooku gu man bàyyi naa sama terrain te quatorze mille quatre cent quarante six bi bi woyofal ñëwee lu tax ñuy wax woyofal quatorze mille quatre cent quarante six bi par ñaari weer si facture mais bu fekkee ni facture facture woyofal la mais ëpp na 14000 ça fait presque 28000 parce que lii par weer la si fal aloo ko pële par ñaari weer yemul de woyofal yemul ak beneen parce que ñoo yem tarif mais ñoom ñaari yemuñu kii par weer lan la may alors ko kële sa ñaari weer lan la ni bul paase lii boo nekkoon woyofal mën nga mën nga lakk 28000 doo fay TVA weer bi mois prochain nga lakk vingt huit mille doo fay TVA alors que boo yoree facture booy lakk quatorze vingt huit mille TVA bi commencé do trente am nga TVA parce que gouvernement bi dafa ni yow boo ko bokkutoo si néew doole donc donc dimbali néew doole yi moo tax mu dellu si ni dama koy gën a woyofal pour que kii lakk par weer moins de quinze mille kooku du fay TVA alors que buy poste paiement daf koy doubler presque parce que tranche yi c'est cent cinquante bee ngay gis ne pour woyefal par mois la alors pour facture par ñaari weer cent ba la ngay gis deux cent cinquante ba la pour woyefal par weer la pour pour facture ñaari weer donc foofu déjà woyefal il y a vingt pour cent yoo xam ne da nga koy gañ automatique fu suñu toll nii kër warul xool sax di wax parce que damay dem si woyefal ba léegi c'est totalement différent ñoom ñaar yemuñu léegi nag bu fekkee ni yow. Euh, ñetti ñetti nit ñële nga xam ne kii moo ñàkk doole mooy 150 bi mooy 15 bi ki si topp dama ba vingt 28 mille gouvernement bi toujours ni man du ma jël TVA ki si topp mu nii lépp loo xam ne support euh, ëpp na deux cent 250 mais ëpp na deux cent cinquante mais mënul warul passé 1000 parce que boo passé 1000 da ngay gis ni da ngay dellu si si keneen ki si suuf foofu nga waroon nekk parce que boo nekkee fële di continuer di continuer sa tarif day yokk fuuf ba fuuf boo ñëwoon ni léegi man kat nekkatuma si koo xam ni tuuti courant la soxla li ma soxla courant xaw na tàkku dem na ba 17 kilos moom la doon wax léegi nit ñi entre 6 ak 17 parce que ñu si kaw ñëpp war ñu passé 6 kilos déedéet 6 kilos mooy doole doole bi disjoncteur bi attan disjoncteur bi c'est 30 ampères disjoncteur bi ñu leen posé ak compteur bi ñu leen posé 30 ampères mënu si jaar lu ëpp loolu te 30 ampères waroo si yegg 20 la war a parce que sinon kon day déclenche tout le temps mais boo xoolee vingt boobu nga xam ni moom moo lay jox facture wu cent vingt cinq mille par mois deux cent cinquante mille par mois soo ko xasee passé mais bul essayé nax sa bopp ndax Senelec mënoon nax compteur bi donc da ngay ñëw ni man kat li ma soxla si courant ëpp na cent vingt cinq mille parce que jënd naa climatiseur wala leneen bu boobaa Senelec li la kon li gën ñëwal si moyenne puissance mais boo xoolee moyenne puissance gouvernement bi daf la ni premier tranche bi garaawul parce que comme que li nga soxla bon xaw na ëpp tuuti jarum ma lay wax première tranche mais dafay yaatal deuxième tranche bi xoolal deuxième tranche bi 300 la moo ëpp deuxième tranche su parce que dafay wax ni yow li nga soxla si courant c'est un important donc dama jox deuxième tranche bu te deuxième tranche bi doo fay TVA alors que boo ko doon nax nekk fële bala ngay ko terminer dem troisième tranche alors que fii yaa ngi toujours deuxième tranche te doo fay TVA est donc aussi de la même façon fii lañu ko wane mais am na yeneen tarif qu'on appelle des tarifs GP cest à boo demee ba passé fii sax am na foo xam ne gouvernement bi dafa ni bu leen leen facturer ci part tranche parce que kii borom doole par heure la leen di facture te ñoo ñuy facturer par heure seen tarif bu dul entre 19 heures ak ak 23 heures ñi nga xam ne courant amul ñëpp taal nañ seen lampe seen tarif day cher mais seen tarif bu dul boobu moo gën a yomb tarifu ñeneen ñi seen tarif bu dul 19 heures 23 heures moo gën a yomb yeneen tarif yëpp même avec TVA parce que seen maat dañu xam ni courant bi seen kër lañ koy jotee du def ñu ko pour commerce et bëggu na leen dimbali donc dañuy wax ni kii li muy consommer entre 23 heures ba sa suba sa à 19 heures mais cent coûte 118 francs boo ko defee avec TVA ça coûte 128 francs c'est inférieur au tarif TTC ou même hors taxe des autres donc yooyu nag bon client bi sax jarul mu koy xam de façon truc parce que du liggéeyam mais Senelec am na ay ingénieur am na ay technicien am na ay ñoo xam ni loolu rek mooy si léegi te maîtriser nañu ko seulement il faut que client yi nangu ni yow boo ñëwee da nga war a wax li xew sa kër da nga wax li am te jarul ngay ragal di wax ni am naa climatiseur mais du ma ko wax wala am naa ñay ay ventilateur du ma ko wax ay tel du ma ko wax boo ko waxul compteur bi daf xam parce que compteur boo ko branché mu tourné te li muy tourné dafay gën a gaaw boo amee appareil yu bari loolu daal laa woon wax ci affaire u tarif bi leneen li mooy woyofal woyofal bi il faut nit ñi comprendre que ni bi ñu génnee woyofal léegi benn nit waratul nekk warul woon nekkati domestique te amul woyofal parce que lépp loo xam ne may nan la ko ci poste par ñaari weer ci woyofal may nan la ko par weer boole ci njëgu woyofal moo gën a yomb wan na wane na que léegi ni njëgu woyofal bi retourne sur l'autre l'autre slide précédent gis nga woyofal bi fii boo xoolee ñu ñoo ñoom ñëpp ñoo yem première ak deuxième tranche mais xoolal troisième tranche bi fii 149 ngay fay fële 150 159 troisième tranche boo xasee ba passé troisième tranche woyofal bi moo gën a yomb te li mu gën a yomb da nga koy gagné parce que woyofal bi sa sa 250 dafay def 500 par deux mois parce que 200 250 bi si woyofal par weer la donc ñaari weer 500 nga xam doo fay TVA mais su fekkoon da nga doon tricher ngay dem di def kan xamul yow sa 250 yi boo defee 251 sax un boobu da ngay fay TVA 10 pour cent parce que gouvernement bi concerné que nii nekkatoo si ñi néew doolee boo néewul doolee da nga koy fay TVA am donc il faut que les gens comprennent cette disons ni ñu tasee tarif bi nga xam ne tarif bi gouvernement bi moom moo xool société bi nan la leen di gérer ak ñan lay dimbali kooku du Sénégal li may wax nii yàgg na bu ñu joxee loolu ba pare nag si la ingénieur ak technicien yi Sénégal yi toog wax ko nag ni que li nga ko doxee nii nga xam ne nii nga tase société bi pour ñii nii la ñu proposé ba mu valider loolu fi ñu toll nii tarif bi buy changé noonu de la même façon lay dem moom gouvernement bi mooy wax CRSE man kat ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole du ma yokk seen tarif comme léegi fi ñu toll nii tarif tarifu première tranche bi yokkul mais bi ñu yokk tarif bi janvier ñoom yokkuwunu dafa ne ñii ñoo gënoon néew doole du ma ko yokk ñi ñoo si topp ñoom dama leen yokkal 10 pour cent mais ñeneen ñi si topp dina leen yokkal 32 pour cent <laughs> waaw mais da ngay wax nag nit mais pour mu leer nag il faut que nit ñi di waxante dëgg c'est-à-dire kenn bañ nekk fële yore sa facture yore sa climatiseur yore sa onduleur yore sa neex ba pare taxaw si tele bi wala internet bi di wax ni waaw Senelec dafa yokk sama facture alors que yow li nga yore sa kër bokkatoo si kii bu fekkee ni yow ba ngay créer sa kër si ñi nga bokkoon léegi passé nga sax ñi ne ñu mujj yi loolu rek mooy li coow taje yi daa me daa mel ni dégg naa boor bi kenn ne leer na waaw leer na nañ leer na nañ d'accord euh, léegi présentation bu mujj bi avant ñuy jàll si euh, jox kàddu gi waa consommateurs yi association consommateurs yi Frédéric Bassène lay nekk moom moo jiite département relation clientèle ak innovation Frédéric ok donc euh, salaamaaleykum donc euh, di ñu di nuyu kilifa yëpp ñu fi teew tey donc euh, di tàmbale monsieur le secrétaire général les présidents des associations de consommateurs monsieur le président du CNDC chers membres des associations de consommateurs chers directeurs membres du COMDIR chers collègues et chers amis de la presse voilà tey nag bu ñu paree ci présentation yi expliquer tarif bi facturation Woyofal bi nañ leen bëggoon tey présenté leen indi leen ñaari jumtuwaay yu bees yi seen leen jëf leen clients yi mooy lu ñu tuddee push mail ak push SMS ak tamit simulateur woyofal donc push mail ak push SMS mooy jumtuwaay xarala yu bees yoo xamante ni Senelec dina mën na yónnee information yu jëm ci wàllum facture yu ci wàllum facture bi ci téléphone ay client pour yëgle ni ndax ngir seen facture yi édité nañ ko préparé nañ ko waaye mu ngi ci yoon pour ñu indi leen ko seen kër wala seen seen seen seen bërëb liggéeyukaay yi mail bi tamit dina tax ci yor ay adresse email ñu mun leen yónnee seen facture par voie électronique en mode électronique li jëm nag ci simulateur woyofal bi xam naa boobu nañ ko bàyyi ba ci kanam bu ñu si eggee ñu dugg si dans les détails nest pa pas c'est bon slide lu tax nag ñu indi ñaari jumtuwaay yu bees yi noo ngir améliorer relation ak clientèle yi parce que gis nañ ni ak suñu client surtout client yi jot facture ñooñu yeneen saa yi dañuy am ay récrimination donc souvent day am ay conflit seen diggante ak diggante seen lekk ndaxte c'est que facture yi dañuy tardé wala ñu ne gis ñu facture yi agence seen lekk ñëw di couper loolu nag problème yoo xamante nag tey jamono fu mu toll nii mën nañ ko éviter ndaxte informatique dox na dox boo xamante ni tey à tout moment normalement client bi mun na jot information nit ki ni am na facture buy ñëw wala yeneen type client yi mën a jot seen facture par voie électronique n'est-ce pas li jëm ci simulateur bi moom mooy li ñu waxtaanee tey suba ba léegi mën a tax client yi mën a gën a comprendre facturation Woyofal bi nu mu tëddee saay bu client bi defee achat mën a xam système bi nu muy def ba xaalis bi client bi di joxe système bi jëlee ko ci xaalis yóbbu ko ci kilowatt loolu dañ si ñëw ci kanam li jëm ci service push SMS ak ak push mail s'il vous plaît slide voilà ci biir service boobu nag ñetti jumtuwaay ñoo ci nekk bu njëkk bi dañ ko jagleel clients yi nga xamante ni ñoom dañuy am ay téeméeri téeméeri abonnement mel ni banques yi téléphone opérateur téléphonique yi ak ñoom seen ñooñu boo xoolee seen abonnement ci biir Sénégal daa bëri donc ñooñu mënuñu rek leen yóndee ay mail tout le temps tout le temps day xaw a indi ay jafe-jafe ci wàllum informatique donc lu leen jagleel mooy dañoo am benn serveur dédié foo xamante ni ñoom seen fichier facturation dañuy dajale seen facture yëpp ñu yóbbu ko ci benn lu ñuy wax serveur informatique boo xamante ni c'est sécurisé client bu nekk pour nga mun accès ci serveur bi nga dugg ci serveur bi dañ lay jox sa mot de passe ak sa login loolu mooy wàllum sécurité bi donc bu ko defee yow weer bu nekk weer bu deewee seen lekk yóndee la notification message na la ah say facture daal déposé nañ ko nga dem say informaticien dem ci serveur bi connecté wu récupérer say facture yëpp hmm? beneen service bi mooy SMS donc client yi nga xamante ni ñoom dañoo jox seen numéro téléphone Senelec saay bu ñu facturé rek seen Senelec leen di yónnee message ne leen ah sa facture daal pare nañ ko mi ngi tollu ci nangam échéance bi date bi ba sangam la bu ko defee client bi mën a préparer wu xam ne ni dina jot facture ci ay bës yu néew dañ ko indil facture physique bi bi ci mujjee nag mooy envoi électronique de facture yooyu mooy pour client yi nga xamante ne ñoom dañu am adresse bu fekkente ne ñoom tamit ñëw nañ ci agence Senelec yi joxe seen email saay bu ñu facture rek ñooñu ne leen yónnee seen facture mais boobu facture boo xamante ni facture bu valable la du point de vue comptable ñoom dañ ko mën a utiliser parce que premier bi message dong la du facture maanaam Senelec bu la yónnee message du ñëw ne la dem lee coupé ndaxte jox naa la message déet parce que diggante Senelec ak client bi facture la ñu wax wante bi mujjee bi nag boobu seen Senelec facture la lay yónnee donc client bi dina ma jël ay matuwaayam yëpp pour préparer pour mën a fay facture bi. léegi nag dañuy ñaan client yi ñoom fekk ne ne dañoo bëgg a jot seen facture par mail wala ñu bëgg a jot SMS bi mun nañ dem ci agence yi joxe foofu seen information contact numéro téléphone wala email pour email bi tamit seen Senelec dafa créer benn adresse boo xamante ne yow boo fa tontoo. na mun enregistrer automatiquement sa email am na ay agent yi nekk ci gannaaw adresse bi def nañ ko nag ci facture yëpp xaw ma ndax def gis ngeen ko fan yi am de waaye boo leen jotee seen facture seen rek am na benn message ñu si def ci message boobu nag di nga gis ni def nañ fa ma facture arobase senelec point sn maanaam yow boo buggee jot sa facture par email da ngay rek tontu ci ma facture arobase senelec point sn su boobaa agent Senelec yi nañ jël yow jël sa email ñu renseigner ko ci suñu système information bi s'il vous plaît on y va encore donc li nga gis nii ci écran bi nag mooy exemple SMS donc saay boo leen jotee SMS bi tëddee nii cher client votre facture numéro X compte de contrat Y du 2 juillet de 34 600 francs, payable via nos agences ou nos partenaires, a été édité et arrive à échéance de 6 août 2023. donc gis ngeen ni que ci SMS bi def nañu si ay information clé pour client bi mu mën a xam facture bi ban weer la concerné ñaata la facture bi tamit ban abonnement la maanaam mooy compte contrat bi parce que am na ay clients yoo xamante ne dañuy am ay abonnement yu bëri mais ci SMS bi dina mën a xam SMS bii mu jot ban abonnement la relier wu tamit ñu jox ko date échéance bi ak montant facture bi maanaam njëkk facture beneen bi ci suuf nag mooy client yi nga xamante ni ñoom mail la ñuy jot su boobaa tamit même information yi nga ci am donc euh, di nga am période facturation bi maanaam facture bi ban période la concerné n'est-ce pas am tamit date échéance bi nga mën nag tijji fichier bi pour mën a xool yow sa facture nga imprimer ko denc ko voilà léegi ñu jàll nag ci bi gën a am solo ci bésum tey maanaam mooy simulateur woyofal donc bu ñu waxee baatum simulateur maanaam jumtuwaay boo xamante ni moom day mel ni kuy jaay crédit waaye foofu du fa am transaction financière maanaam kenn du fa joxe doñ kenn du jël sa xaalis la waaye lépp li ngay def pour jënd crédit di nga ko def ci simulateur bi ba mu jox la résultat bi nga mën a xam yow bu fekkee ne yow da nga naroon jënd 5000 par exemple boo ko yóbbuwoon ci système facturation Senelec bi 5000 yi nan lay tëddee ba joxe njëgu courant bu méngoo simulateur bi nag disponible na ci Play Store maanaam ba suñu tey boo leen demee connecté bu Play Store ngeen tapé simulateur Woyofal di ngeen gis ni application bi dina feeñ di ngeen ko mën télécharger ci seen téléphone yi donc première étape bi bien sûr mooy page d'accueil bi mais attention am na ci benn message da lay ne ni simulateur bi gérewul dette ndaxte dette loo xamante la client bi bor bu client bi amee sa lekk donc yow client bi bu fekkee ne da ngaa bëgg a utiliser simulateur bi ci looy dugal pour ne man lii laa bëgg a jënd foog nga dindi si yow sa bor bi nga amee sa lekk ba pare ok su ko defee nga tànn sa usage mooy sànq li monsieur Dieye expliqué ndax yow domestique petite puissance ga wala domestique moyenne puissance wala professionnel la bu fekkente ne client bi amul usage am mën na wootee ci centre d' appel bi 33 867 66 66 wala 30 166 66 joxe ay information notamment numéro compte bu boobaa conseiller nañ ko mën a wax yow ban usage nga wala mu dem ci agence bu ko defee ba pare boo tànnee sa usage nga dugal léegi montant bi nga bëgg a jël boo ko dugalee nga validé ba pare système yi jox la résultat bi nga mën a analyser résultat bi bu la neexee tamit mën nga jëm ci détail bi boo jógee ci détail bi nag système bi dina la wax ni yow sa ataa ndax mi ngi ci première tranche bi ci deuxième tranche bi wala ndax dem na ba ci troisième tranche bi wax la tranche bu nekk ñaata kilowattheure nga ci am ak montant bi léegi nag pour mu gën a concret dañuy dem ci démonstration bi en cinq minutes rapidement ku nekk mën a gis nes ce pas simulateur bi nu muy doxee Donc c'est une, c'est juste la démo, hein. il va se partager, il va partager l'écran. Et voilà. Donc comme nous l'avons dit, donc vous allez dans Play Store. Donc une recherche finie, simulateur Wayofal. Okay. Donc vous allez voir l'application, n'est-ce pas, dina feñ. Té bo leen ci cliquer, di ngeen ko mëna télécharger ci seen téléphone yi. Donc boo leen ko télécharger, installer ko ba pare n'est-ce boo leen ci duggee nag lii mooy nekk page d'accueil bi donc fii ci kaw am ngeen fii benn menu foo xamante ni am na fa ay information yu jëm ci woy fal bi notamment tranches yi tarif yi code cours clavier yi et cetera ok léegi nag pour lancer simulation da ngeen di ñëw fii cliquer pour continuer nga cliquer boo cliquer nga dal ci page bi nii nga jëkk a tànn yow ban usage nga ne bu fekkee ne DPP nga nga bës ci bouton DPP li ci topp mooy système bi dina la laaj sa date dernier achat maanaam ban bés ci weer bi nga mujjee jënd crédit bu fekkente ne yaa ngi ci achat bu njëkk bi foofu doo fa def renseignement donc dina la laaj date dernier achat ak tamit sa cumul achat du mois maanaam bu fekkente ne yow bi ngay def bi nga bëgg a def sa simulation jot ko jëkk jënd pour dix mille francs foofu foo nga renseigner système bi nga ne ko ah man de jotoon naa jënd dix mille francs crédit ok su ko defee nag nga jàll nag ci yow achat bi nga bëgg def maanaam li nga bëgg a simuler bi nga bëgg xool et donc tey le vingt 24 le 24 octobre donc damay ñëw fii montant achat ma def 5000 ok ma valider ma bës bouton simuler su ma bësee bouton simuler système bi jox ma n'est-ce pas jógum 5000 francs crédit donc boo xoolee am na coût éner am na énergie bi 48 virgule 90 francs montant énergie montant redevance TCO boo defee total montant yëpp mu jox la 5000 francs donc lu tax mu am montant redevance ndaxte bii mooy sama achat bi njëkk ci biir weer moo tax système yi day jël da lay won ni premier achat bi foofu mu jël redevance bi ok. léegi nag ñu demaat jënd naa bu njëkk bi 5000 ma bëggaa jënd 5000 encore ma ne système bi man kat bësuñ ci tey jëndoon naa 5000 donc fu ñu def montant cumulé des achats antérieurs ma def 5000 d' accord ma ñëw montant à acheter ma ne ko mille laa bëgg a ma defaat fa mille ma ne ko simuler sànq ñu ngi amoon quarante huit et quelques kilowattheures léegi ñu ngi am cinquante trois virgule cinquante kilowatt